ci wàllu jàngalin ci wàllu yar dañ kaa war a ci boppu xale yi topp nanga bi du yar rek ci sur le plan vraiment ci kii classique bi ñu koy waxee gise nii mooy nit ñi sentir ni ay doomu Sénégal la ñu sentir dañoo war a a nangam en même temps am benn conscience citoyenne mais réew bu nga xamante ni pour say intérêt personnel na yàqu ci ngoon moo la gënal yàlla ci yàlla musal baaxul et ba ci des na xam ci la xam ku ne gis na l'islam li mu def ci xam ak xam xamle parce que yëpp xam ci la boo doon tey nga jël ci statistiques yi xool réew yi nga xamante ni tey mooy ñoo bokk tey bokk ci biir aussi di ay jullit plus de 70 pour cent yàlla koy ci tey 70 yi demul te si jigéen ñi gën a ëppee di nga xool te iqra jëkk wàcc ci alquran plus de 70 pour cent nga xool li gën a rey sunu fii mooy arab yo asulaasiyatul xatira al maradu wal jahlu wal ummiya analphabétisme maladie ak it lu euh, ñu ko waxati ak ak ak ak réer Aliou Diagne boo xoolee moo ci ëpp rawatina nag ci jigéen ñi wala ci àll yi loolu lépp pour ñu mën a nag combattre lii ñuy jëm nii war a mën a nangam war nañoo fexe ba xeex nit ñi xam xeex ba ndóol jóge fii wala bu jógewul ñu wàññi ko lool fexe ba les ñu xool ñu koy mën a nangamee donc loolu lépp. moytu jël diine ji ci sunu réew yi dinaay dégg gaa ci réseaux sociaux yi kilifa yëpp di ko nangam di xeexante ci ay tarixa koo seqal affaire mënoo jàkkaarloo moom nekk ci nangam yi di wax wax ju ñaaw yooyu duñu ko mën a rafetlu mukk ci adduna may attirer attention réew mi di leen wax ni kii di El Hadji Abdoulaye Thiaw Lahi doon na ci ay maamam baayam sax dugg ci kër diine yi tuddante fi ay tur baxam Seydina Issa def na ko def na ko ci Tiwaawan def na ko ci Touba Serigne Ablaye def na ko ci Tiwaawan def na ko ci Touba def na ko ci feneen kon ñooñal lay cohésion sociale ci diine yi war a nangam ñu ngi joué vraiment ci loo xamante ni dina mën a boole kër diine yi booloo këri diine yi nag ci biir Sénégal bokk na ci liy jàmmal réew mi kon tu doon sa ci bu ma mën a doon moo xam Seydina la moo xam leneen la ak koo mën a foo tibb nit yëkkati mu gën a ñaawee sànni fa na la wóor ni saan woowu ci yow lay dellu si boo xoolee sa bopp ni yow rekk keneen xool bopp ni maa fi dàq man rek te nag yàlla rekk fi dàq na bu ko demee ñu bañ ñu bañ a jël diine ji di ko xeexee loolu ne pas utiliser la religion a des fins personnelles et pour des agendas cachés ñaareel bi renforcer les canaux de communication et de dialogue entre toutes les composantes de la euh, de la société bon afin de consolider les valeurs de paix de justice et du ensemble à la lumière des principes fondamentaux qui s'articulent autour de trois points de l'origine humaine yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaila li ta'aarafu inna akramakum le principe de la dignité humaine wa laqad karamnaa bani trois le principe de miséricorde pour l'univers wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin à tout que nous. Dans ce contexte de mutation mondiale, nous devons faire valoir le rôle de ces principes, euh, de ces principes et islamiques dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Donc nous, foofu fa la ñu toll fa la ñu jëm mi message boobu la ñu soxla soxla nañu dal soxla nañu dal ci suñu réew soxla nañu dal nag ci ñi nga xamante ne ñooy doomu Sénégal yi quel que soit ak lu mu mënti mel ak différence yi maanaam loolu la yàlla def sunnatullahi fi xalqihi yàlla moo bind ñii ñuul ñii xonq ñii di wax chinois ñii di wax français ñii di làkk pulaar ñii d'accord loolu sunnatullahi loolu la yàlla binde mais nag macha allahu lenn rek lan war a mën na noo war a mën a partagé asamaan si ji ñu bindul man a dox ci suuf sunu moomul mën a tu ngelaw loo xamante ni yàlla moom lépp te ku ci nekk xaj nga ci kon réew mi nan ko xajoo nañu bëggante nañu téyante sunu message du message xalif général de la te dinaa ko répété waat wax ko ku mu mënti doon ak fu mu mënti jóge ak noo sant ak koo mu mënti doon loo sànni ci sa kaw la jëm réew mi weesu na foofu réewum citoyenneté la bu ñu fi demee bis bu ñu demee ba dindi li ma wax sànq dindi yëf yi teg fi leneen ñun ñëppee perte nee naa leen njéeréeri bi ñu duggee Sénégal toolu sëriñ ak taalu bi tool yëpp dañu lekkandoo njéeréer yi laa wax bi ñu duggee ci réew mi amul tool bu ñu épargné taalu bi ba bu sëriñ bi ku ne lekk nañ mooy kasaalik bu ñëpp croiser les bras seetaan la société ku nekk ni naan ku nekk ni naan nu la neexee fu la neexee nu la nangame ñu koy sànnente ñun ñëpp bu yàggee daanu bëgg a dajaloo mu tënk kon loolu ñi nga xamante ni ñoo yor tamit yor seen i biir ñoom ci egsee daanu wax li ñu leen di wax nun suñu message du génn foofu El Hadji Abdoulaye Thiaw lii ñu wax di ko def Abdoulaye Thiaw loolu la dundee dama bëgg Sénégal gépp xam ni kii toog fii tey di suñu waajur ñuy ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal waaye yàlla na fi yàlla yàggal sunu kilifa diine yi ci réew mépp na ñi fi nekk ñoo xam ay rakkam lalu ay doomam ay nangam lanu ay nangam lanu ak njaboot gi fi nekk genn njaboot rek fi nekk ñii ma jàkkaarloo ngeen jàkkaarloo ñoom xam nga lan lañu seetal ñoom wallaahi wel na say dañu mën a doon nii ak nii du ci am dee dem bu fekkente ni laa ilaha illallah la bàyyi lay waxte moo ko fi andi lay lay laa laa lanu bàyyi lay jox lay laa la ñuy si kar nanu ko gëm nii nu toogee nii nii nu nangame nii na nekk loo xamante ni moo ñuy boole ñun may profité di gërëm ñii ma dendeel muy groupement central bu baax a baax a baax a groupe santit la fédération des daïra santit njaboot gi fa xamante ni ñoom ñëpp ku ci ne yaa ngi am taxawaayu bu rëy mais ñëw ñi nga xamante ni tey mooy la commission scientifique gi nga xamante ni bee ngi nii ñu liggéey liggéey bu rëy bi bu ne xam na ni ñoom ca Cambérène maam Alsaan ñoo ma gën ak a ñoom la leen boole sant leen benn liggéey ñu war a liggéeyal ca Cambérène ànd ak bàyyi ji defe naa ni loolu lu mat a bàyyi xel la ci programme boo xam ne amal na lu solo lool mooy ni Cambérène nag da dëkk boo xam ne dëkku Seydina Issa la fale ñaareel ba ne teet Seydina Issa Rouhoullahi mi nga xam ne moo sant Cambérène Cambérène tey jii dama ni mooy capitalu communauté layène c'est ça la vérité loolu mooy li am bàyyi laa yegg sant quatre euh, mille huit cent Seyna Issa indi que quatorze fi nekk kon boobu war naa mën a mérité ñu jëlee ay festivité feneen andi que Cambérène loolu rek laa am di tëjee di ñaanal suñu mbokk yi ñu ma jàkkaar lool di ñaan yàlla yàlla leen yàlla defal tawfeex yàlla na ngeen dugg ci lii génnaat ci ba ku fi ñëw yàlla gën laa yokk allahumma salli ala sayyidina Muhammad